أيسمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي بكي تالبي بكي جلدي bokk yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar ci tereftal uh, sunu weeru bopp bu rëy wi tereftal bu weeru rëy wi te mag lool ci nun uh, cant cant gi nag. borom liggéey bi rek lañ ciy jiital. kon liggéey bi rek lañ ciy jiital. borom liggéey bi borom liggéey bi rek lañ ciy jiital. moom bis bi dafa wax ne bis bis la boo xam ne bisu sant dañu cee digal ñu santale ko ci boromam. bis bi dañu cee digal ñu santale ko ci boromam. waaye man nag ni ko gisee bala ñu bala ñu ko gisee sante dañ koy sant ba noppi moom ni mu ko gisee ñun bala ñu koo santale dañ koy sant moom ba noppi dañ sant diggam ak boroomam dañ koy sant digganteem ak boroomam sant ko diggam ak yonent bi sant ko digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ko diggam gaay yàlla yi ci kaw sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci kaw sant ko diggam ak gaay yàlla yi ci suuf sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci suuf di ko sant ci jëmmi boppam di ko sant ci jëmmi boppam ji yan bu bi mu yan diggante ak boromam muy màggal ko. yan bu bi mu yanu diggante ak mooy màggal ko. fa ko àggalee ni jote ñu bari jote wuñ fa. ko àggalee ñu bari jote wuñ fa. ñu ñu bu ci ñu néew ci jote. ñu néew ci jote. buñ ko santee ba noppi nag. buñ ko santee ba noppi nag. door a jëm nag ci santale ko. door a jëm nag ci santale ko. sant le ko sant le nag dafa am waajtaay. sant ko ak sant ko nag dafa am waajtaay. dafa aajo dafa aajo teew teewlu teewlu jëmmam ji ci suñu xol yi dafa aajo ñu teewlu jëmmam ji ci suñu xol yi ak suñu xel yi. daf koo laaj. daf koo laaj. buñ ko defee. buñ ko defee. danañ woon gannaaw lépp lu dul moom. danañ woon gannaaw lépp lu dul moom. ci loo xam ne danañ soxal. ci loo xam ne nu soxal.

muy moom rek muy sunu yitte. moom rek nekk sunu yitte. ndax mën nu ko fayee amul amul luñ ko mën a fayee. noonu nag amul luñ ko mën a fayee. lu jox ko sunu lépp rek. loolu jox ko sunu lépp rek. nekkal ko nag. nekkal ko nag. ni mu ko bëggee ci nun ni mu ko bëggee ci nun nu nekkal yàlla rek nu nekkal yàlla rek. ndax bu buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. ndax buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. noonu la ko borom bëggee ci nun noonu la ko sunu borom bëggee ci nun bu nu teewloo nag ci loolu ba noppi. bu nu teewloo ci loolu ba noppi. delloo ko suñu lépp. delloo ko suñu lépp. nu door a nag. nu door a dellusi nag. àndaat ak suñu sago. àndaat ak suñu sago. fas yéene koo santale nag. façon fa yéene koo santale nag. ci bis bii mm, ci bis bii. kon man noonu rek laa ko gisee. kon man noonu rek laa ko gisee. kon santale ko ci suñu lépp nag. kon comme sant ko ci kon kon sant ko ci suñu lépp nag. mooy loolu rek nu nu delloo ko suñu lépp. mooy nu delloo ko suñu lépp. suñuy xel ak suñuy xol. suñuy xel ak suñuy xol. ak su suñuy jëf. ak suñuy jëf. xam nga ci ci ci ci ci ci ci jàng alxuraan. tàmbalee jàng alxuraan. jàngal ko xasaayidam yi jàngal ko xasaayidam yii. nga xam ne diggante boromam rek. ak diggante yonent bi diggante borom rek ca nekk ak diggante borom yonent bi. ak deeyaaleem ak deeyaaleem rek la. ak deeyaaleem rek la. nu nekkal ko ci bis boobu. ñun waaj waajal suñu bopp teewlu. nu nekkal ko ci bis boobu waajal ko suñu bopp te teewlu. fonk fonk fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk ko bu baax jàng yi ñuy jàng xasaayid. fonk jàng yi ñuy jàng xasaayid loolu lépp ñu am ci pësteef. loolu lépp ñu am ci pësteef. di ko di ko sa di ko sàkkoo ngërëmam. di ko sàkkoo ngërëmam rek. gannaaw jàng yi jàng alxuraan gannaaw jàng xasida gannaaw jàng alxuraan jàng xasida ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm nanu nanu gën a gën a tàggat suñu bopp nanu gën a tàggat suñu bopp gën a toroxlu jëm jëm ci jëm gën a toroxlu jëm ci sant ko jëm ci sant ko jëm ci santale ko jëm ci santale ko kon bu nu bu bu bu nu teewloo ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy jëf kon bu ñu teewloo ci suñuy xel ak suñuy jëf ak suñuy yëpp. suñu wërsëg mi ngi ci biir loolu. suñu wërsëg wépp nag a ngi ci biir loolu. lépp nag ñu delloo ko ko. lépp nag ñu delloo ko ko. ci ci ci xeeti ci xeeti xeeti jëf yu baax. ci xeeti ci xeeti jëf yu baax yu mën a doon nag rek xam ci wërsëg la jóge moo xam ci wërsëg lu jóge moo xam ci leneen lu mën a jóge rek moo xam ci leneen lu mën a jóge rek lu baax rek la loo xam ne lu baax rek la lépp ñu boole ko loolu lépp ñu boole ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko jébbal ko ko jébbal ko ko santale ko ko santale ko ko diggante ak boromam loolu mooy li ci jiitu loolu mooy li ci jiitu moo ci am solo looy loolu mooy li ci am solo yàlla na nu suñu borom gën a gën a taw feexam yàlla na nu suñu borom gën a gën a noo gàttandoog taw feexam ba nin ko nin ko nin ko ko war a santale nu nu ko ni mane ko ni nu ndax niñ ko war a santalee ñu xamee ni manee ko ni jëf ko ni jëfee ko ni jëf ju sell jëf ju sell yàlla na nu ko suñu borom yàlla yàlla na nu ko suñu borom defal may nu kattan gun ko gun gun gun ko mën a santalee. may nu kattan gun ko mën a santalee. ci suñ lépp ci suñ lépp. kon jërë ngeen jëf. kon ñu ngi leen sant mi ngi leen sant jërë ngeen jëf. noonu rek la. noonu rek la. bokk yi bokk yi. bokk yi bokk taalibe yi bokk taalibe yi bokk jullit yi bokk jullit yi. kon bis bis baa ngi ñëw. kon bis baa ngi ñëw. nan ko waajal bu baax nan ko waajal bu baax. ni mu ko bëggee. ni ko bëggee. sunu kem kattan sunu kem kattan. nu jéem ko. nu jéem ko. loolu nu ci man lu nu ci man lu ci nu def ko. nu def ko lu ci mënut. lu nu ci mënut nu yéene ko. yéene ko fas fas ko. fas ko jéem ko. jéem ko. sunu kem kattan sunu kem kattan. waaw loolu loolu loolu loolu rek la demee loolu mooy mooy àq bis bii ñu jëm. loolu mooy àq bii ñu jëm. mooy sunu bis boo xam ne eh, bis la boo xam ne. bis la boo xam ne. Eh, eh, li ci nekk ci ci ci jiw yiw yiw jiw mën nu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu ko xalaat ci suñuy suñuy xel. li nekk ci njëriñ ci bis boobu yii di ñëw. Mm-hmm. mënuñu koo xalaat suñuy xel mënuñu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu koo xiyaas itam. loolu rek la xanaa dañ koy dañ dañ dañ dañ dañ koy sante suñu borom rek. dañ koy sante suñu borom rek. sëñ bi moom dañ koy sante suñu borom rek. sëñ dañ koy sante suñu borom rek. moom mi nu booleeg moom. waaye waaye waaye du loo xam ne lu. lu lu lu lu lu lu nu mën la. du du loo xam ne nag lu nu mën la. dañ koy bëgg ka jéem rek. dañ koy bëgg ka jéem rek. loolu noonu rek la demee. noonu rek la demee. kon nag euh, noo ngi sant. kon nag noo ngi sant. Euh, bokk yëpp. bokk ñoo ngi sant bokk yëpp. bokk bokk bokk bokk bokk bokk yi. bokk yi. ñoo euh, ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. loolu nag sama sama wàllu bopp la. loo nee na loolu moom cant googu wàllu boppam la. dama am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. ne damaa am cant gu rëy sama digganteeg bopp yi. ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma seqal sëriñ bi. ñi ma seqal sëriñ bi. ñooñu ñoo ci jiitu. ñooñu ñoo ci jiitu. ak ñi ak ak ñi ñu ko bokkal ñëpp. ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag. damaa am cant gu rëy goo xam ne mun mun xaw ma nu ma koy sante. danaa am cant goo xamante ne xaw ma nu ma koy sante. sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom. waxuñu ma waxuma sax ñu jàppale ma. waxuma sax ñu jàppale ma. waaye dañ maa soññu. dañ maa soññu. dañ maa dimbali. dañ maa dimbali. dañ maa sagal. dañ maa sagal mënuma koo lim. mënuma koo lim. sama diggante ñoom sama diggante ak ñoom. liñ ci jëf liñ ci jëf. Euh, mënuma koo lim. mënuma koo lim. kon kon. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki yi. mboolem bokki jullit yi nañu xam ne. nañu xam ne. sama bokki bopp yii. sama bokki bopp yi naa leen sant naa leen gërëm naa ñoo ko jë ñoo ko jëf. te ñoo ko jëf. ñoo ko jëf sama diggante ak ñoom. ñoo ko jëf sama diggante ak ñoom. di sant nag. di sant nag. bokki taalibe yëpp bokki taalibe yëpp ndax lépp lenn la ñun ñëpp. ndax lenn lañ ñun ñëpp. ñii tudd di tudd sëñ bi. ñii tudd di tudd sëñ bi. ak ak ak ak ak ak taalib yi. ak taalib ak taalib yi bi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. lenn rek lañu. lenn rek lañu noo bokk noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo noo noo noo ànd lépp. noo ànd lépp. ñooñu itam. ñooñu itam. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen sant gu rëy a ndax ndax eh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom sama bokki taalibe ndax ñoom sama bokki taalibe yi ci ñaari anam laa ci taxawee. ñaari anam laa taxawee ci sama bokk taalibe sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñi ma ñii tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñi ñii tudd di tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñaari taxawee laa ñaari ñaari ñaari anam laa ci anam laa ci am. sama digganteeg sama bokk yi ñi ma bokkal sëriñ bi. sama bokk sama digganteeg sama bokk yi ma bokkal sëriñ bi. ñoom sama ñi nga xam ne xaddam laa ci ñoom. ñi nga xam ne xaddam laa doon doon ci ñoom. ak ñi nga xam ne mbokkum mbokkum mbokkum taalibe laa doon ci ak ñi nga xam ne mbokkum laa doon ci ñoom ma ngi maa maa ngi leen di seeral rek sama nañu xam waxtu wu ne noo gu ma nooyi maa ngi ci leen di seeral ne maa ngi gën a yees sama jaayante ak sama sama jaayante ak sëriñ bi di leen di di gën a yees feddali sama laxasaay gi ba fas laxasaayoo fas yéene liggéey sëriñ bi lépp nag ma ànd ñoom te lépp itam lu ma ci wut ñoom laa ci jiital ci sama bopp maa ngi fas yéene nokki gu ma nokki maa ngi koy fas yéene jaayante koog jaayante koog sama sama diggante sëriñ bi ak sama digganteek ñoom ak lu ma mën ci àdduna lu mu mën a doon rek ma ànd ba fas yéene koo ànd ak ñoom rek ba faw loolu loolu mooy mooy mooy sama cant ak ñoom mënu ma ko wax sax. loolu mënu ma ko wax sax ndax mënu ko wax sax sama lami. noonu la loolu laa ko noonu laa ko mën a firndeelee. waaye noonu yi rek laa ko mën a firndeelee. Euh, dellu si itam nag. dellu si itam nag. ci euh, cantuk boppam. cantuk boppam. muy sembu rëy sëriñ bi. muy sembu rëy wii nu sembal sëriñ bi. te te te te te te te te mu bokkoon ca euh, la la la la la la ministre la mébétaloon boppam la ministre loon boppam mu bokk ci la nga xam ne moom la ministre loon boppam xaw ma sax nu koy waxee waaye moom lu lu mu fàggaloon boppam la. ba noppi xaw ma sax waxee waaye lu mu fàggaloon boppam ba noppi loolu moom danoo am tawféex képp. loolu moom danoo am tawféex. dong yem ca yem ca. nekkal ko ci nekkal ko ci. Eh, muy liggéey bu rëy bi muy daara ji. muy liggéey bu rëy bii di daara ji di université bi. liggéey liggéey boobu. liggéey boobu. Eh, doy na waar lool ci man. nee na liggéey boobu doy na waar lool ci man. Eh, ji moom mun ma ko ñàkk xalaat. xalaat ji ba mënu ma ko ñàkk xalaat. waaw da da fas yéene fas yéene fas yéene rek fas yéene fas yéene cee fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. waaye nag. waaye nag. nii nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. muy bokki sama bokki bopp yi. muy sama bokki bopp yi. di bokki taalibe ak bokki taalibe nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. lu lu lu. bettuma sax ndax sax xam seen diggante ak sëriñ bi bettuma sax nag ndax xam seen diggante ñoom ak sëriñ bi waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe sama njort waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe nag sama loo xam ne eh, rëy na ci man lool loo xam ne rëy na ci man lool mënu ma koo xam nu ma nu leen di sante mënuma ma koo xam nu ma leen di sante te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase ñëpp ci maase ànd ànd koog man ñëpp ci maase ànd koog man jiituwuma leen ci lu day ne dee dee ci be nee na jiituwuma leen ci lu day ne lii dee ci be noo bokk yéene ji noo bokk yéene ji xalaat bi bokk xalaat bi bokk pësteef bi bokk pësteef bi bokk jublu gi bokk lu jublu gi bokk jëf ji bokk jëf ji bokk bokk liggéey bi bokk liggéey bi kon ñooñu nañu xam ne maa ngi amel naa la cant gu rëy rëy rëy ñooñu nañ xam ne amel naa leen cant gu rëy rëy ne dama ko dama dama dama dama dama damay ànd ak moom ba ci kanam liggéey bi damay ànd ñoom ba ci kanam borom liggéey bi ma ma ma ma ma sant leen fi kanamam ma sant leen fa kanamam loolu mooy lay lay lay lay sedd sama xol loolu yi mooy sedd sama xol foofu rek laa ko jëmee foofu rek it laa ko jëmee kon jërë ngeen jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yéen mbokk yi ak talib yi. Euh, di gën a santaan na geneen sant geneen sant bu ci dolli. ne di gën a santaat geneen cant nag goo xam ne moo ci dolliku. ndax euh, jamono jii nu weesu. ndax jamono jii nu weesu. xat na lool. xat na lool xatoon na lool. xatoon na lool. waaye. tawféex sëriñ bi rek. waaye tawféex sëriñ bi rek. moo moo nekk ci suñu kanam. moo nekk ci suñu kanam. ñun xamuñu dara. ñun xamuñu dara. doonul dara doonul dara. doonul dara mënuñu dara mënuñu dara. tawféex sëriñ bi rek mooy la ñuy xool. tawféex sëriñ bi rek moom la ñuy xool. bu bu nu sëggee rek mu wonnu fan. bu nu sëggee rek mu wonnu. loolu rek moo ci am fan jëm. loolu rek moo ci am. loolu rek moo ci am. xew-xew bi amuñu ci woon benn benn tiitaange. nee na mosuñu ci am benn tiitaange ci xew-xew bi. ndax ni ma ko daal leerale rek nun nun dana yaa yaar rek la yaar rek moo moo nekk moo moo moo moo nekk suñu wet. ndax yaar rek moo nekk ci suñu wet. yaar yaar rek mooy moom moom la ñuy moom moom moom la ñuy jëfandikoo. yaar yi rek moom la ñuy jëfandikoo. mooy mooy mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. yàlla mooy def mooy dindi. moo yàlla mooy def mooy dindi loolu am yaqin ju mat sëkk. danoo am yaqin ju mat sëkk ci ne yàlla dong ngay def moom rek ay dindi. doyloo sëriñ bi itam diggam ak boromam. doyloo nag sëriñ bi nag diggante ak boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun fàggul nanu ko fàggul nanu ko lu mat a ñaan lu mat a ñaan ñaanal nanu ko ñaanal nanu ko te jiwoo na ci ak boromam te jiwoo na ci ak boromam kon kon yàlla nag yàlla nag moo xam li muy def moo xam li muy def soppiku jamono mosu fee jóg soppiku jamono nag mu mosu fee jóg diggaale mag jaam ñi mosu fee jóg diggaale mag jaam yi mosu fee jóg te du fi jóg mukk loolu mooy mooy mooy xew-xew bu yees loolu mooy xew-xew bu yees bii loolu dong la loolu dong la waaye nag waaye nag amuñu ci lenn lu ñuy lu ñuy jaaxal nee na nag dara amu ci amuñu ci luñ ciy jaaxal lenn lu ñuy sikki sàkk wala lenn lu ñuy sikki sàkk musta am musta am ci biir loolu nag ci biir loolu ma am ma ma ma ma ma ma ma ma ma am ma am cant gu rëy nag. mu ci biir loolu nag ma am cant gu rëy. ci ñi ñi ñi ñi ñi ko bokkal. ñi ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. ak adduna ji ak adduna ji. am na ñu mu dénk diine ji. am na ñu mu dénk diine ji. am na ñu mu dénk adduna ji. am na ñu mu dénk adduna ji. nu bokk nu bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag bokk lépp nag.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 def nañ ci seen kem kattan. loolu nag loolu moo tax man itam il faut que lu ma loolu moo tax nag man itam lu ma ca man sama kem kattan. da da da daa leen ca wuyu. danaa leen ca wuyu. danaa ko digle itam. danaa ko digle itam. waaw kon nag na na na nanu gën a gën a góorgóorlu. waaw su su su ni li tawfiix ji ñu am. ci suñu diine ji tawfiix am ci suñu diine ji. waaw am ko itam ci ànd ak nit ñi yàlla dénk adduna ji. mën ko ànd ak ñoom suñu kem kattan. ak tawfiix ji bu nu defal ñu man a ànd ak ñu ji mën koo àndandoo ak ñoom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 dimbali na ma ci sama taxawaay dimbali na ma ci sama taxawaay kam kattan lu ma defal rek sëñ tubaa tax lu ma defal rek sëñ tubaa tax waaye nag dama koy gën a bàyyeeg sëñ tubaa waaye dama koy gën a bàyyeeg sëñ tubaa te xam ne du ko rëcc mukk lii lii lii alhamdulilahi rabbil alamin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 su kon nag sax sañ na noo sax dàkk ci jaamu yàlla sañ na noo sax dàkk ci li ko liggéey nan nekk ci diggante boobu nan nekk ci diggante boobu rek nan nekk ci nam nekkee ci diggante bee rek noonu la ñuy nekk suñu diggante ak moom rek noonu rek la demee kon nag euh, jërëjëf kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gën a sant bu baax baax di yeesal cant gi bu baax a baax ah, mbirum mbirum liggéey bi itam mbirum liggéey bi itam eh,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 la ci la la ci jëm ndax liggéey sëñ Tuubaa rek te te te day wéy di wéy te loolu day wéy di wéy buñ ko yemale fenn incha allah duñu duñu xañ dara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 nag jëme ko nag ca la nga xam nan ko xamee noonu loolu ci laa fi nekk nee foofu la nekk te ko sama bokki taalibe yëpp te nekk foofu rek nan nekk foofu rek gërëm naa waaye daal na ñëpp xam ne daal sant naa gërëm sama xol sedd na guy mel na ne sama aajo it faju na ba noppi sama aajo faju na ba noppi waaw fi lu ma fi dese it lu ma fi dese lu lu fas liggéey ko sëñ Tuubaa lu liggéeyal sëñ Tuubaa lu lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa ko sama mbokk taalibe rek loolu yi rek la ko waaye man sama aajo faju na ba noppi ci biir ak rek ndax man te am naa ko kon sama aajo faju man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 te sëriñ bi ñëwut bor dafa am pay kon ni ko sëriñ bi santaane rek na ko bokk taalib yëpp xamee noonu ni ko sëriñ bi waxee itam njàngu alxuraan bi itam ni ko ni ko kilifaam yi jëkk daa diglee mi ngi koy fàttali ñëpp ko ñëpp tàmbale santaane woon ko sax waaye neen mi ngi koy yeesalaat ginnaaw weer wi tàbbi na ba bañ a àgg ci bis ba ni ko daa santaane yëpp mi ngi leen koy fàttali di fàttali itam xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi yoo ko def te sëriñ bi leeral lépp lim daa déyaale boromam loolu itam sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalib yëpp ak lépp loo xam ne nit mën na ko ci lu baax na ko Cheikh Mahamadou Farid daa waxee nañ nañ ko màggal ci lépp loo xam ne ak jaamu yàlla ak lu baax kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soññ bokk jullit yëpp di soññ bokk taalib yëpp ci bis bi nga xam ne amul lu moom muy bisu sëriñ Tuubaa bi bu loolu jàllee itam nag mi ngi soññ bokk taalib yëpp ci ni mu ko waxee nga xam ne ñëpp xam ne ne day iteem muy daaree Seexul Xadim ji nga xam ne manis naa wax ne naa li fi sëriñ Serigne Touba bàyyoon moo fi des yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke naaloon ko sëriñ Serigne Saliou Mbacke ñëwoon mottali ko bu ubbi daaree alxuraan ji bi yàlla defee nag kilifaam yi ko fi wutu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidou Moussa ku ci ne amoon yéene ja moom bi mu agsee nag waxtaan bu mu njëkk a wax ñëpp dégg nañ ko mooy. musuma am benn xalaat wala jën yitte lu may daari Sëriñ Tuubaa ji kon nag Sëriñ Tuubaa da ko cee liggéeyloo liggéey bi it feeñ na ndax boo mu ko tàmbalee ba nëgë ni sant na bokk julli di sant bokk teel bi ndax wane nañ ci yitte wane ci taxawaay wane ci positif kon da leen sant ci li weesu lépp ngir xam ne la Sëriñ Saliou Mbacke daa wax ne joxe bi dafa jiitu laaj bi kon moo tax soññut sax ci di leen soññu. ndax xam nañ ne def ngeen li man ak li ngeen mënut te ko dem ci liggéey bi it da xam ne ñëpp wane nañ ci seen yitte wane ci seen taxawaay wane ci seen positif waaye nag yéene gim leen ko yéene ndaxam ne ni mu ko waxee rek lépp lu baax rek yéen la ko gën a yéene ci jëmmam moo tax bu soñoon kenn ku ci ne lu ci waay defoon rek na xam ne day door a tàmbaliwaat ndax ndigalu Serigne Touba lu mujj rek mooy ndigal la te lii nag moo fi mujjoon ci ndigalu Serigne bi kon Serigne bi nee na xam na ne. li ngeen man ak li ngeen mën lépp def ngeen ko kon sant na bu baax waaye nag ki ngeen di jëfal teg na ci bëtam kon nag li ci kanam mi ngi soññaan ñëpp ku ci jëfoon nag na nga na nga na nga xam ne yaa ngi door mel ne ku door a te xam ne lu njëkk la suñ borom daan la ko fay suñ daan la ko fay waaye li ci kanam itam lu ci waaye defoon rek na ci defaat lu ko xam ne liggéey bi liggéey bu yaatu la boo xam ne ni mu ko waxee rek yëmul fenn te keroog ba muy tax xeer wa ci loxoom yu teddee dafa waxoon ne. liggéey bu mu laal suuf kon loolu nañ xam ne amaanatu ci yoon wépp nañ xam ne liggéey bi kon bu mu laal suuf mel na ni ñëpp dégg nañ ko noonu waaye kon nag ñu ngi soññaat ñëpp ngir xam ne jëf ci moom la sëriñ bi waxoon rek bokk na ci njëriñi addiya addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waaye dana fekk fu lu bari nekk mu barkeel ko kon sëriñ bi ne mi ngi soññ ñëpp ci bis bii nga xam ne ci lañ jublu si di ñaan ñu àgg ca te dugg ci bismillahi rahmaani rahim day ceeg tawféex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu أيسمني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري